simili ah dootul fàtte altine démbam jëde déedéet tribune yéene kaa ne altine démb jëde ñuul na lool ah waaw parce que Idrissa Diallo day di meeru Dalifort ak général Mamadou Niami la eh, wuju nañ seen borom allahu akbar inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun laste, eh, génn adduna wu général ñaa boobee waaw ak Idrissa Diallo day meeru Dalifort ni ki kon démb la waaye dee yi nga xam ne kilifa ñu koy day day ragal lu na de tiit lu na de lool les ko yéene kaa ne génn adduna bi nga xam ne général Mamadou Niang ak Idrissa Diallo mi la daal dinañ koy génn àdduna waaw jàppal ni corona gi day ma nga continuer na kon di def musiba mbaaba kumba ba léegi ni lé yéeni kaay ne général ñaa dee da dialogue ba dem na Idrissa Diallo mi la jàmbaar dem na góor dëgg dem na le quotidien yéene kaay Mamadou Niang de mission ba jeex na allahu akbar daal dinay bàyyee nag dialogue politique bi doon kon ab la wax surse année am na ci ab réunion boo xam ne tey jëlee lañ ko amal ci altine ji day ngir dëggal nag expert yi nga xam ne kon ñoom la ñu sasoon wàllum fichier électoral bi lé ak wàllum processus électoral ba waaw waaye teew général Mamadou Niang moo fa jaar réunion ba amatul allahu akbar le soleil yéene ne soldaar ba dem na bilaay soldaaru consensus ba dem na les éco yéene kaa ne Idrissa Diallo day maire Dalifort jàmbaar dem na góor dëgg dem na laa la wax ku déterminé engagé lii quotidien waaye 2020 bi dañu ko sip nak la la wax mar di tali waaw waaw amna ci ay kilifa yu bare bari kon ci 2020 bi lañu dem le témoin yene kané ma lay limal ñoñé budul corona gi di dé naturel mo tax 2020 at la wo xamni ne mar maar tali ci kilifa ne ca kaw parce que Papa Diouf ci la dem Babu ba Diop ci la dem Bab malik si ci la dem Babacar Touré ci la dem général Mamadou nya ci la dem professeur ibader cham ci la dem Idrissa Diallo ci la dem Mamadou Bamba ndjay ci la dem Mansour Kama ci la dem Seyda Mariama nyass ci la dem ak ñeneen ak ñeneen sax direct news de la ci secrétaire général ministère économie ak finance di Pierre Ndiaye a xam ni corona baa ko yóbbu allahu akbar tey ma wax leen nag lan moo xew ci deewu Pierre Ndiaye moomee gis nga gaz ci boppam kon moo manqué woon ca hôpital CTO laa la wax allahu akbar looloo gën a yàq wàllu wér-gu-yaram waajoo jee Ndiaye jàtta laataa ñu koo jël tam di ko yóbbu ca hôpital principal bële jël na temps bu bëree bëri sax allahu akbar yéeni kaa gi a kaay ba jogoy fay bi ne portable ci boppam gaal ba la réeré allahu akbar ca jamono joo xam ne nag maanaam gaañaa ngay dee Sud Quotidien nee na crise politique yi xam ne kon moo am nag parti day ca fii ci Sénégal waaw réew mi bu président yi day jël na wàllam de jël na wàllam de Momar Jong journaliste waaw nee na gis nga di ca fal de li ko yóbbee du dara lu dul Idrissa Seck mi nga xam ne kon dafa mujj yëg boppam lool lool lool critique yéene kaa ne gis nga homme de l'année 2020 waaw président Macky Sall day kacat lañ ko ca teg leen ko ne waaw parce que xoolee ma président Macky Sall rek ni ñu koy wanee ci télé rajo ak internet yi kon di ko médiatiser lii dafa mujj ëpp sax wàllum dialogue de délit d'ambition coowal troisième mandat ba dugg non Macky Sall kay boo bëggee dégg dëgg mooy homme de l'année waaw waaw bu dee mooy homme de dana leer parce que tribune yéene kaay Sall day dañu koo wër ndomb de débat wu troisième candidature am bi troisième bi waaw dama la Macky Sall dañu koo wër ndomb ca APR gële ak Benno Bokk Yaakaar bari nañu lool ay nit ñoo xam ni kon dañoo ànd ak moom te d'accord ci projet boobee de téeté te gis nga biir nit yoo xam ne ñoo fa ne d'accord ñu benn yoon ci troisième mandat bi daa la wax yéeni kaay dee média gi ne te gis nga buñ ca yeggee waaw di gis ñaari kan ci biir kan Macky Sall bi jàkkaarloo laa la wax te boo sàgganee tey fa lay kalaatee nag réew mi quotidien ne Macky Sall kay xoolal ñii di ko tëkku rek imaamu lew na ña baa ngi nii di ko tëkku ndax wàllum ziyaara ba waaw ak ay jinne imaamu grande mosquée de Ndakaaru Ndiaye Jël Joob a eh, di eh, ko fi jëlee laa la rafetlu gi daal mooy nguur gi daal laj échec la aménagement du territoire les si ko yéene kaa ne waaye Omar Gueye day ministre waaw fa mu nekkoon jógewu fa ba léegi nii la dee ne daf dindi kon fii lii supprimer leen Ismaïla Madior Fall nekkoon ministre de la justice ci l'observateur nee na président Macky Sall buñ ko waxal lu mu waxul Macky Sall buñ ko waxal lu mu waxul parce que Macky Sall mësul wax ne day supprimer fii lii la wax aa Madior Fall maa leen wax bu leen ko waxal loo xam ni waxu ko woon te lan lañ fi waxaa kattanal capital bi jox ko ab statut nga xam ne dana mën a yor yorinu mairie woo xam ne gu mucc ayib la te ànd ak dal waaw kay lii la ma ki wax waaye mosul wax ne dañuy supprimer bi li terminier rek ané gis nga coowal akile ak excelle ak boor kom waaw Birahim Seck day balewu Macky Sall ba léeg-léeg jël ko ni ko dajji te ko ca digg ba ni ñu jaxa-jaxatee Sénélec ni lée alalu Sénélec bi waaw Birahim Seck ci livre bi nee na Macky Sall Matar Cissé yo jébbal na lu tolloo ñaar fukki rapport procureur de la république eh way Samba Seynabou Ndiaye Jaxate ne waaye ñun nag bu leen ne dafa am fu ñu yem de waaye ku ñu bind ñun tontu nañ la Seynabou Ndiaye Jaxate yemu ca ndaxte njiital of na day nee na jot nañu ñetti plainte laa la wax ci jëm nag ci wàllum séddaleem lekk gi yorinu covid 19 ji waaw nga xam ne Mansour Faye moo ko jiite woon te ay nag ubbi nañ leen ca Dakar Times de aha yéene finance ak budget libération en tout cas scandale day am na na coye bokk ca ndem si yàlla SGBS société générale maa la ko wax lu tolloo 419 millions la ñu fa sàcc allahu akbar te ay particulier la ñu ko sàcc de moo tax it waa di day teg nañu loxo Mor Gueye Sine mooy responsable zone Diourbel te tamit am na plainte boo xam ne day door nañ ko Jean Marc Marcel Millet ak Pierre Gabriel Sadio nekkoon fi nag directeur général société générale yëpp Sénégal googee 419 millions <laughs>